asalaamaaleykum ma chers internautes solution TV jamono ji nag euh, yéen a ngi en direct comme ni ngeen ko gisee noonu euh, ci buntu euh, Walfadjri nit ñi nag ñu ngay daal di ñëw ngir taxaw ndax ndiki tey Walf dafa daal di woote ab rassemblement fii ci buntu Walfadjri ngir rek daal di ñaawlu licence bi nga xam ne rek Moussa Bocar Thiam ministre bi nga xam ne moo yor wàllum communication moo ko daal di nangu mu nekk nag mbir moo xam ne metti na askanu Sénégal. ndiki tey nag Walf daal di joxe woon daal di joxe ab rendez-vous ngir rek sénégalais yi nga xam ne ab euh, maanaam am nañ cofeel euh, ci euh, group bi la di Walfadjri te Sidi Lamine Niass daal di koy taxawal moo waral ngeen gis image yooyu lii waaye nag gis nañ fi takk der yi fees nañ fi dellu lool lool lool li ko waral nag pour la moment xamaguñ ko est-ce que dañoo bëggul li ni mel am wala déet wala dañ fee ñëw si juste rek pour daal di aar wala pour daal di am benn taxawaay maanaam pour rek metre de l'ordre ci li nga xam mooy bi le rassemblement dinañ ci daal di xam dara mais liñ ci mën a jàpp daal mooy que oto takk der yi fees nañ fi euh, dell maanaam takk der daal daal nañu ñëw en masse comme niñ koy waxee sénégalais yi tamit ñu ngi ñëw euh, nank par euh, maanaam benn par benn ñi ngi ñëw te boo xoolee sax gis nañ drapeau Sénégal ngi ne lépp rek ngir wane que ne rek Sénégal moom moo daal di soxla et que ku ne xam ne ne groupe Walfadjri bi ni nga xam ne lañ ko daal noonu nangoo seen licence métti na ñëpp ba si xalif général Léona Niassène bi sax euh, gis nañu daal na ci àddu ba joxe ab ultimatum ngir rek ñu daal ji euh, mën a maanaam indi licence Walf bi leen ndax Walf mën a fonctionner euh, comme avant yéen a ngi koy gis noonu nit ñaa ngi noonu noonu di dugg ci biir Walf lépp rek ngir daal di mën a préparer li nga xam ne rek moom mooy bii li rassemblement bi nga xam ne rek woote nañ ko bu 15 heures jotee jamono ji nag comme niñ ko waxee rek takk der yi ñoom ñu ngi fi ak seen ay oto daal di taxaw Koungheul ñu daal di taxaw ci buntu euh, Walfadjri bi li am loo xam ne nag euh, yëkkati nañ ko kaddu waxtaan waaye tamit bañ paree euh, dañoo daal di dem mais nag ñaa ngay taxaw ba léegi rek di xaar niñ ñi comme ni nga ko waxee rek ñu ngi ñëw benn par benn juste rek pour daal di ñëw féddali li nga xam ne rek moom mooy seen kóllëre ak di Sidi Lamine ñaas di ko ñaan rek suñu borom daal di ko yërëm te xaare ko aljana daw si ba tax na groupe de presse bi nga xam ne la voix des sans voix baat ñi amul euh, baat maanaam ñi nga xam ne rek seen baat euh, mënul yegg fenn fi Walf moo fi Walf moo leen daal di euh, waxaal comme ni ko Sidy Lamine Niasse aussi daan waxee que ne askan wi moom moo leen di fay yéen yéenay mindaanu askan wi maanaam ñi nga xam ñoom ñooy liggéey ci biir Walf rek ay mindaanu askan wi la loolu nag la muy daal di firndeel mooy que lépp loon am rek askan wi moo leen ko daal di euh, may jamono ji nag ne xam ne ne Walf am na benn taxawaay boo xam ne rek am na ko ci euh, peuple euh, sénégalais di wan li nga xam ne rek jafe yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy daal di dund et aussi tamit à chaque fois dañ koy gis ci côté peuple bi lay daal di nekk ànd ak peuple bi di leen défendre waaye surtout aussi yi ci côté opposition bi ndax gis nañ ne euh, gis nañ ne président Macky Sall ba mu nekkee ci opposition bi moom Walf am na benn taxawaay boo xam ne rek am na ko ci ba heure bu bëggee heure bu bëggaan a wax rek Walf lay daal di ñëw euh, wax fii bañ tëjee woon Walf ci jamonoy euh, maître Abdoulaye Wade moom président Macky Sall ñëwoon na fii di maso Walfadjri waaye tamit di ko xamal ne ko kat yoon ba nga taxawoon ba léegi euh, taxaw fa te wal fu ca yoon boobu noonu la daal di nekk ba léegi mais gis nañ ni régime bi aussi mu ngi ciy maanaam mu ngi ciy dund li nga xam ne rek moom mooy ay euh, jafe-jafe depuis nag mars 2021 ba léegi gis nañ ne wal fu jugul ci jafe-jafe 2022 ba 2023 ba 2024 ni ñuy daal di nangu seen licence définitivement li ni mel nag métti askanu yëpp moo waral tey rassemblement bi gis nañ ni nit ñaa ngi euh, dugg ci biir lépp rek ngir daal di ñëw ngir teewee Euh, mbir lépp rek ngir teewee euh, bii li rassemblement ngir xam rek ne yan kaddu lañ cay daal di euh, yëkkati groupe de presse nag bu nekk rek daal di ngay taxaw temb ngir rek accompagner waaye tam ngir rek ñëw pour solidariser ak Walf jafe-jafe yi nga xam ne rek ñu ngi koy daal di dund ba tax tey sax foofu noonu ca maison de la presse gis nañ ne taxawaay bi nga xam ne la presse sénégalaise am na ko fa ñëw daal di taxaw Pape Alé Niang gis nañ ko fa Bamba Kassé maanaam euh, kuréel yi nga xam ne rek ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo ëmb euh, presse bi rek teewoon nañ fa juste rek pour daal di ñaawlu war bu baax a baax li nga xam ne def nañ ko wal fa ak injustice bi nga xam ne rek mi ngi koy daal dund waaye naka la nga xam ne loolu ñu ko tere rek mooy que wane ay euh, wane ay manifestation maanaam ñoom jàpp nañ nekk ne kat li ni mel dafa yëkkatiwaat loo xam ne amaana sax ñu ci bëri yëgu yëguñu ko woon Walf bu ko wanewee rek dafay firndeel que ne bëgg na koo xamal euh, ñëpp te loolu dañuy bañ daal mu daal di am benn tournure boo xam ne du lu baax moo tax duñ bëgg la presse sénégalaise daal di koy wane comme que nag Walf à chaque fois dafay wane que ne ci côté askan wi la daal di nekk moo tax moom yooyu li daf koy daal di teg mais bu ko tegee rek dañuy gis que ne gàllankoor dafay daal di ñëw euh, dal ci euh, kawam moom nag moo dalaat ci kawam ginnaaw ba président ma Sall xamle que ne dafay reporter. yile élection gis nañ ni askanu Sénégal dañoo daal di jug rek commencé euh, manifester commencé naqarlu commencé euh, méttitlu li nga xam ne rek moom lañuy ñuy daal di euh, gis yeneen gis noonu di ñaa ngay dugg benn par benn juste rek pour daal di mën a fekkee waxtaan bi mi ngi doon nag jigéen góor mag ndaw ku nekk rek ñu ngi noonu nag ci bunt bi sax am nañ ci nekk waaye ci biir tamit nit ñaa ngay dugg rek ngir fekkee ji voilà voilà mi ngi noonu nag ñi ngi noonu di dugg benn par benn l'essentiel daal li ñu ci mën a jàpp rek mooy que euh, tey buñ jullee juma ba pare ci le rassemblement boobu lee di am maanaam bu quinze heures bu ñaxtu bu ñetti waxtu euh, jotee tànk nag maa ngi woon ci report bi ak li waral euh, li ñu daal di retirer licence Walf bi lee parce que président Macky Sall dafa xamle que ne kat moom dafay daal di euh, maanaam dafay daal di prolongé mën nañ ko waxee li ni mel dafay ajandi euh, li nga xam ne rek euh, moom mooy yii les élections ndax institution bi ga gis que ne kat maanaam jafe-jafe daf ci daal di am dafa commencé. Euh, menacé wu loolu nag moom moo firndeel wala moom moo waral ñu daal di euh, nemmeeku ay euh, manifestation fii ci réewum Sénégal loolu nag tax ñu daal di aj ñu daal di retiré licence su Walf waaye nag instant bi gis nañ ne que ne kat nit ñi ñi ngi ñëw yéen ngi seen noonu nit ñi ngi taxaw ci buntu bi di saafonte waaye tamit takk der yi yéen a ngi leen di gis noonu ak seen ay oto ñoom rek ñu daal di taxaw ngir xaarandi bi le rassemblement daal di am dañuy daal di taxaw aar maanaam euh, sàmm li nga xam ne moom mooy euh, kaaraange gi àndandoo ko ak ñoom wala lu ci mënti am daal xam naa ne euh, ci kanamu tuuti dinañ ci daal dinañ ci daal di wax dara mais liñ ci mën a jàpp daal instant bi mooy que seen fourgonnette yeeg oto yi policier yaa ngi noonu wala gendarme ñi ngi noonu daal daal di taxaw lépp rek ngir daal di xaarandi li nga xam mooy bi le rassemblement rek daal di am ba léegi yéen a ngi yéen a ngi fii ci Walfadjri ñu ngi nii en direct Walfadjri ngir lépp rek ngir daal di leen leen di euh, dégtal la nga xam ne instant bi euh, moom moo fi daal di am euh, mu nekk nag ab situation boo xam ne Euh, critique na lool lool lool ndax Walf la mu daal di woote tey rek mooy rassemblement waaye tamit daal di métti lu euh, la nga xam ne rek Moussa Bocar Thiam ministre bi nga xam ne dégg wàllum communication ak télécommunication daal di koy def euh, groupe de presse bi lii daal di retirer seen licence définitivement loolu nag moo tax instant bi nag ñu woote bi les rassemblement boo xam ne dina am ndiki tey waaye tamit ndiki tey dina ko daal di am ñoom rek ña ngay daal di métti loolu bu baax a baax a baax presse sénégalaise bi aussi daal di ci euh, jàpp ba sax gis nañ ne waa CAP tamit euh, taxaw nañu euh, temb rek ngir ñu daal di indi li nga xam ne rek moom mooy maanaam licence bi lu ko mooy rek dañ def journée boo xam ne presse du am journée boo xam ne duñu ñu jàllale information te loolu ku ne xam ne ni baaxul ci ab dëkk ndax dëkk rek dafa daal di baaxoo ñuy joxe information yi waaye nag ñoom yooyu les mbir la ñu daal di tekk ñu nekk ay plan d'action yoo ki démb aussi ginnaaw réunion bi nga xam ne rek amal nañ ko xam xamle nañ ne que ne kat dinañ teg ay euh, plan d' action lépp rek ngir daal di mettre lu bu baax a baax li nga xam ne rek def nañ ko groupe bi di Walfadjri comme ni ko comme ni nga ko waxee ci euh, ki nga xam ne rek moom mooy Khalifa Léona Niassène moom itamit euh, ma ngay xamle que ni à chaque fois rek ñuy teg lu metti ki nga xam ne rek moom mooy euh, Walfadjri groupe de presse bi li li ni mel nag dafay daal di mujjee nekk ab injustice ñu daal di koy teg ñoom ci seen ay ndodd ba tax na comme ni mu ko waxee tantôt Walfadjri jamono ji nag la nga xam ne rek teg na ko comme plan d'action mooy que vendredi tey ab sitting moo fi daal di am samedi aussi dina am dimanche tamit dina am lépp rek fii lay amee ci buntu Walfadjri mu nekk nag mbir moo xam ne instant bi yéen a ngi nii di gis image yi am na si ñenn ñoo xam ne ngi taxaw yaa ngi gis drapeau yi euh, ni mu nekkee nii la ne la rien que rek pour que ne tey kat moom moo dal di soxla tey nekk tamit ab bés boo xam ne euh, bés bu nar a mouvementé lay daal ji euh, doon parce que tamit à suñu élection ñoom itamit woote nañ ab rassemblement ci Euh, gox-goxaat ci ak fi foo xam ne rek mën naa ne jàpp nga ne kat ñu ñu reporter élection yi neexul neexula rek ñoom ñoo daal di woote euh, li ni mel ba tax na mu ne ab journée boo xam ne euh, dina tàng lool lool waaye tamit ñoom pacifique nag la ñu daal di woote maanaam dox ci jàmm ak salaam wala dem wax li nga xam ne rek moom moo la daal di métti ci jàmm ak salaam boo paree rek nga daal di dem est que li ni mel dina jeexee foofu am déet dinañ ci daal di xam am dinañ ci daal di xam dara mais la ñuy ñaan rek mooy que mu jeexee ci jàmm ak salaam yi wax lu leen métti génnee bu ñu paree rek daal di jàll ca leneen waaye tamit ñu bañ a dakkal élection yi nga xam ne bala tamit conseil constitutionnel bañ ànd ak dogal bi nga xam ne rek moom président Macky Sall daal dina koy jël parce que jamono ji bu sañoon rek ñu daal di euh, dakkal li nga xam xam wala ñu daal di ajandi li nga xam ne rek moom mooy euh, élection yi moom naka la moo xam ne rek mooy que crise dafa daal di am euh, te ki nga xam ne rek moom mooy euh, mi ngi noonu nag ñu gis noonu. oto bàyyi noonu yéen a ngi koy gis noonu euh, ngeen gis ci nataalu ki nga xam ne rek moom mooy Sidi Lamine Niass mi ngi noonu daal di gaare ci euh, buntu Walfadjri rien que rek te xam naa ne euh, ci kanam tuuti rek lépp dina daal di leer bu 15 heures jotee ngir ñëw mën a xam rek réellement ana tey yan kàddu lañ fii daal di yëkkati ana yan lan ak lan lañ fii daal di wax mais daal lañ ci mën a jàpp rek mooy que. di ñaa ngi euh, noonu euh, takk der yi aussi ñu ngi nii euh, taxaw temb rek ngir daal di mën a xaarandi ba xam fii ana lan moo fi xew ci kanam tuuti ba tax na ñu fàttali rek li nga xam ne rek moom moo waral li ni mel mooy que report bi nga xam ne rek président Macky Sall moo ko xamle woon ndiki 3 février 2024 kene kat dafay reporter yi les élections daf koy daal di ajandi loolu nag mën naa ne moom moo daal di jur ab manifestation ab série de manifestation situation am ci réewum Sénégal léegi nag Walf ne ko Walf doon ko wane li nag moo waral nag ñu daal di leen di menacer daal di retirer Euh, seen euh, licence mu nekk nag jafe-jafe boo xam ni ku ko yëg rek ci askanu Sénégal am nga euh, lu la metti lool lool moo tax rek ñëpp di sàkku ñu daal di yéen a gis pancarte baa ngi noonu di génn rien que kii moom pare na pour ñëw rek daal di indi li nga xam ne rek moom mooy soutien wam ki nga xam ne rek moom mooy président moom mooy Walfadjri groupe Walfadjri mii la yéen a ngi koy gis noonu lee moom nag lii rek xam naa ne moom mooy participation ci euh, biile euh, mbir ba tax na yéen ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel jamono ji yeneen ci solution TV continuer leen ba léegi rek euh, di like yi tamit di abonné euh, ndax dafay nekk mbir mu am euh, solo lool lool lool lool lool comme ni mu ko waxee tantôt nag li indi li indi yëpp li waral tey ñu daal di yegg si situation bi mooy report bi nga xam ne rek moom njiital réew mi moo ko daal di addu ndiki 3 février moom nag nee na lam ca daal di jublu rek mooy que defaraat réew mi ba mu baax na gis nañ ko ci conseil des ministres ba la nga xam ne rek loolu la teg na ko eh, ndiki 3 février eh, nax mi ngi xamle que ne kat ab père de famille eh, du gis njabootam di di am benn xiiroo beek ngaayo mu bëgg leen fa bàyyi loolu nag du ko def dafay daal di toog régler mbir mi ba mu nekk koroc ba pare su pare nag soog dem linimel ni mel le président Macky Sall daal di justifier mbiram ca kanamu ministre ya ca kanam kanamu ministre ya ba tax na rek moom mu daal di xam li li mais daal report bi moo indi jafe-jafe yëpp gis bile euh, jafe-jafe bien vrai ne groupe de presse bile moom moo ko daal di dundu muy euh, Walfadjri waaye nag la communauté internationale euh, ñoom daal dinañ ci àddu bu baax a baax waaye tamit di ko xamle que ne na daal di indi li nga xam ne rek moom mooy maanaam. na daal di organiser élection ci date bi nga xam ne rek daal nañ koy euh, jàpp maanaam 25 février 2024 euh, loolu nag la jamono ji la ñuy daal di euh, sàkku ñoom waaye tamit sénégalais yi li ñuy daal di sàkku rek mooy que ñu daal def élection ci délai bu gàtt maanaam ci 25 février boobu lii waaye tamit daal di delloo fu licence bi nga xam ne rek jël na ko ndax c'est pas la première fois ñu gis jafe-jafe yi mais pour la première fois ñu gis ñu daal di nangu licence am ndax gis nañ ne que ay coupure am na fii ñu leen di aj une semaine un mois Euh, nemmeeku euh, nañ ko fi waaye nag bii dafa nekk loo xam ne dafa daal di doy waar nax dañ ko daal di nangu euh, définitivement loolu la ñu daal di xamle jamono ji nag takk der yi ñu ngi noonu oto fur seen oto fourgonnette yi tamit daal nañ koy indi lépp rek ngir daal di ñëw taxaw ngir xaarandi bii li mbir daal di am est-ce que dañoo ñëw juste rek pour daal di taxaw pour sécuriser mbir mi lépp pour accompagner leen ci la nga xam ne rek woote nañ ko ndiki tey wala ak lu ci ak leen fi mën a indi daal nañ ci daal di xam dara xam naa ne ci kanam euh, tuuti rek rek rek mais nag euh, gis nañ ne euh, ñoom daal taxaw nañu temb ñu ngi noonu nag force de l'ordre yi ñu ngay noonu jamono ji nag lépp rek ngir daal di ñëw taxaw ngir xaar li ni mel daal di commencé liñ ca mën a jàpp daal mooy que instant bi Euh, sénégalais yi ñu ngi ñëw benn par benn heure bi nag heure julli la gaa mais sénégalais ñi ngi ñëw benn par benn rien que rek pour ñëw euh, fekkee ji li ni mel li nga xam ne nag moom moo ci gën a euh, mën naa ne marqué nit ñi mooy que drapeau bi nga xam ne rek nemmeeku nañ ko muy drapeau Sénégal boobi li lii rek dafay daal di firndeel parce que Sénégal drapeau am rek lañ ko daal di mën xàmmee xàmmewee te gis seen nañ ko fa feenee ca buntu Walf ba tax na yéen ñi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel son bi nag comme ngeen ko gisee ñu ngi fii ci euh, la voix des sans voix maanaam euh, baat euh, ñi amul baat maanaam ñi nga xam ne rek seen kàddu mënul jëm ca kaw ñoom daal ñu daal di taxaw temb rek ngir nekkal fi ñi nga xam ne rek ñoom ñooy askanu Sénégal moom moo tax tey buñ leen tëjee nag gis nañ fii am na jafe-jafe boo xam ne wal fu amoon na ko askanu Sénégal daal di fii taxaw temb nax ñoom dañoo demoon ba dañoo daal di imprimer ay journal di ko jaayee francs rien rek pour ñu daal mën a fay ay seen ay employé ñu gis sénégalais yi am ci benn taxawaay bu am solo boo xam ne euh, defoon nañ ko accompagner leen ci lépp ba ñu daal di a euh, ca boobi li euh, mbir tey nag ñu gisaat que ne ñu daal di retirer seen licence bu leen di permettre rek ngir ñu mën a def émission comme nañ naan ko defee voilà di leen jaajëfal mbokk internet solution TV di leen joxaat di daje ndik ci kanam tuuti ak yeneen i information waaye nag restez connecté ngir ngeen mën a am ngir ngeen mën a am li nga xam ne rek moom mooy euh, information yu wóor te